yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë jëf gisuma Macky Sall démb waaye bi mu gisee nii waa këram yi def këram gi mu di siège APR bi am na lu ko mitti bil yéene kay bi réunion bi état major benn bokk yaakaar woote woon démb ci dëmmante ci la mujj farandoy Amadou Ba yi ak farandoy Diouf Sarr yi journal bi ne nañ ñoo fa doon jàppante ab résolution bu ñu defoon ngir doon ca xamle ne ñoom ñëpp ñu ngi ci ginnaaw Macky résolution boobee la ñu a waxtaane waaye ndajama yeggul Mamadou mi jiite mouvement pour la refondation des valeurs bokk ci réew yëpp militant Abdoulaye Diouf ñoo ko sooke ñoo bàyyi ba Amadou Ba jël kàddu gi di wax ñu di ko yuuxoo ngir bëgg koo humilier yéenekaay bi tegal ñu ci ne premier ministre Amadou Ba bu mu jëlee kàddu gi di wax wax ja yeggul ab microm la ñu coupé boole ceeki di ko yuuxoo foo toll di dégg gaay Diouf Sarr di yuuxu naan bojo bojo yi seen bàyyi ñëw na ca la jàmmu jeexe siège APR ba salfaaño si seen naaw kurpañ a tàkk pompa gazé jolli journal bés bi la jour nañu li waral coow li mooy bi Abdoulaye Diouf Sarr jëlee kàddu gi di wax dane Ndakaaru ñaari candidat moo fi am muy man ak Amadou Ba ko sooy wax waxal rek ngir sa bopp bul wax ci sama tur man duma candidat ci lenn journal bés bi le jour nañu ci la militant yu Abdoulaye Diouf Sarr yu jógee di ko yuuxu ak a yuuxoo coupé micro bam doon waxe journal lañ fa nañu état majeur bu benn bokk yaakaar bi ci Ndakaaru seen réunion bi ñu woote woon démb bëggoon caa wane ne bennoo nañu booloo nañu yëf yi ci xeexoo ci la mujj ba Abdoulaye Diouf Sarr waxee ne ñaari candidat ñu am ci Ndakaaru m man ak Ba Amadou Ba toog fa mu toog yëkkati baaramam di ko weddi ak di sàkku ci moom mu génn ko ci ay waxam loolee moo mitti ñi ànd ba tax ñu yàq ndaje ma ndaje journal Le Témoin mi ngi ñuy wax ne ab assemblée générale la woon bu dajale woon responsable yi Benno Bokk Yaakaar yi nekk ci juróomi département yi ci Ndakaaru li bëggoon moo di xamal président Macky ne koo ñu tànn rek ànd nañu ak moom waaye malheureusement ci ay xeexoo ci la mujj lise ko bind ne pro yu Amadou Ba yi ak pro yu Abdoulaye Diouf Sarr yi ñoo fa doon giitangaas li Amadou Ba tontu Abdoulaye Diouf Sarr bi mu ne Ndakaaru ñaari candidat ñoo fi loolee moo ñu yoon ci candidature Benno Bokk Yaakaar Macky Sall mi tànn bu ko tànnee def ko candidat Benno Bokk Yaakaar bu boobaa dina wàcc ci terrain bi wan ñëpp li mu mëne direk ci news mi ñu indil la nekk ci résolution bi gaa ñi bëggoon a séddoog seen gaa yi démb mi ngi ñuy leeralal ne Amadou Ba musuta wax ne du candidat candidat bi yëglu ba ñëpp dégg ko di Ndonga Ndiaye xëy na séq waxtaan wu yaatu ak waa Soursois njoolum bawal gi di Ndonga Ndiaye mi newoon conseil spécial bu président de la République njoolum bawal gi di Ndonga Ndiaye mi samp am dëndam déclaré candidature am ci élection présidentielle yi am ci réew mi 25 février 2024 nee na ca waxtaan même bi muy doon conseil spécial bu président de la république nekkoon ci wetam bari na ay décision yu Macky Sall daan jël daaw ci ànd ak moom te daan taxaw wax ko ñëpp di ko dégg lu ci mel ni nii wii nii noo gi fi Macky Sall doon wax te mu yàqaleen lu bari mu ne it bi muy nekk ci wetu président Macky Sall bari na ñu fa nekkaloon ñoo xam ne liñ ko mës a jàppe moo di tête brûlée maanaam nit ku ëngësle Karim Wade Khalifa Ababacar Sall yi ñu ne dañ leen di réhabilité mu su ma ko déggee sama xol dafay jeex ndax bi jàngal politique li ñu a gëm mës a wax mooy ay sàcc lañu kon lan moo fi soppeeku entre ba tax ñu bëgg ñoo seen ginnaaw bandang ñooy messi yi war a ñëw ngir sauver ñu Mamadou Lamine Diallo bu mouvement tekki di ko feelu ci l'observateur nee projet de loi ba ñu jëmee ci assemblée nationale ngir bëgg a réhabiliter Karim Wade ak Khalifa Sall lu baax teg na ci ne Benno Bokk Yaakaar gi mu gis ci tas la jëm ñu dem ci réew mi quotidien mi xëy di ñu xamal ne waa Benno li ñu woote jamono ji mooy Benno ak booloo juróomi département yi ci Ndakaaru muy Kër Massar di Pikine Tëngéej Géejawaay ak Ndakaaru def nañu ab